képp kuy seetaan Sahel Network TV ziyaare naa leen sargal leen di leen bëggee comme nuñ ko faral di defee rek business profile lañ wax looy yëngu di invite képp koo xamante ne mu ngi yëngu si dara di yëngu si wàllum business di yëngu si wàllum jaay ak jënd rek Bukan na ñëw tok fi nga waxtaan ak man nga wax ma ci li ngay yëngu tey nak suma gën bi ma sha allah suma xarit bi taru bi sha allah dama koy bay rek mu nuyu leen wax leen mom moy kan suma xarit bi nuyu na la. mbokk yi bi man ne kan day Santa Demba owner and founder of the Ney Globe. ak Demba's online store. ah kay lolu mom neex na gis nga Ney Globe mom um rek gis nga li la ma andil tay mu ne ma man ma wo ko rek su ko suma tuñ bi di nes na mu allah Ndey. lan mo la duggal sa business ba nga start di def business. actually my one in China student la. so dama just thought, why not Maduga si business bi. ma def something let me just work for myself. because dama gis ne online store yi Gambia no noonu dafa nekk something new for them so mu ne mm-hmm. why not ma si business be, mm-hmm. cause da am naa customer yung hamne that this is the first time you jënda bagas for me. Hamun sa procédure bi nu mu faa and then ñu ngi pull pour dëkk bi mu dem forward online store yi ñu gën a mm-hmm. bari moom moo inspire ma si business bi ah, but dama just talk like, ma ne xaaral ma def lii just do it Madefko. def ko loolu na toro macha allah ndey waa léegi nga jël ne glow bi nii rek moomal ko sa bopp <laughs> rek dafay def nii rek ñu xam ne ci ndey la jógee. waaw lan moo tax nga commencé lip gloss. commencé wu ma si lip gloss bi sax actually online uh-huh. store bi laa commencé. ah lip gloss line bi. waaye man xam nga lu ma gën a jaaxal. lip gloss baa bëri buzz. xam nga <laughs> jaaxal gis nga ñu mel ne ñu macha allah. ñu rafet yi rek uh-huh. exactly so lip nay nay bi dafa ñëw because daf doon boost. dama ko def pour mu boost business bi. pour ma gën a am more customers. because mm-hmm. China am naa ñu bëri ñu ma nekkoon di support. comme suma xarit mu ne ma you can do this. ni mm-hmm. muy toogoon rek mu ne ma ne why not nga def sa own brand. because yaa uh-huh. ngi def business bi. dina jàppale sa business mu dem forward support nen nen mm-hmm. noonu laa ko commencé ma def ko and then ma mm-hmm. am more supporters in China cause foofu noonu China si boppam laa ko def mm-hmm. ma build brand bi foofu def launching party bi and everything so Gambian yi tamit commencé di order maa ngi amoon orders from France USA tamit nit yi xarit yi all over ñu ma doon support uh-huh. so loolu pour business bi dem forward la uh-huh. rek stratégie la da nga xam rek nooy def yaa loolu moom neex na soo liggéey loolu mooy sa expérience nga ñëw nga tukki nga dem andi bagage ak nga nekk di dundee tamit ak waa business bi ba pare yow da nga di jël order ba pare nga soog a yónnee bagage yi loolu naka nga ko nekk di dundee. it's really hard trust me it's not easy. <laughs> cause man bi sax nga laa xamee ne. billaay yaa man dama dee jël full full payment laa dee jël duma dee nangu half payment. so da gis su ma amee customer dinañ ma wax ne nag. full payment la nag half payment ma ne la ne man full laa day jël cause man student la mm-hmm. and then Gambia nii am sorry but da ngeen dañ am jikko boo xam ne dañuy dañuy fay xaaf du fayati nga war a dem di toppa nit ki pour mu fay xam nga loolu uh-huh. tamit mm-hmm. sa business bi du dem fooda so yooyu noonu challenges la pour man mm-hmm. nga gis customer dina ñëw mu ne man half payment laa am mm-hmm. but man full laa di jël so du mun a jël order bi no matter what même su ma waxee ne sax damaa dugal half payment bi nga jàppal ma xaalis ba ma dugal full nga dem nga nga go ahead with the order duma ko jël so da ngay gis customer yi dañuy dem si yeneen yeneen nit yi nga xam ne probably dañuy jël half payment but then tam loolu that's a lot of trouble oh, waaw and then coronavirus bi tamit yaaxal na suñ business bi a lot mhm. because right now DHL rek moo nekk di work cargo shipping nekkuñ di work container shipping mu ngee work but daf dee jël sixty sixty days mhm. te yeneen customers yi they are not willing to wait for that long mhm. so yaa ngi gis DHL dafa expensive. waaw yenn saa da ngaa jënd lu nga xam ne sax it's cheaper than shipping fee bi. Mm-hmm. so it won't be worth it. customer yëpp yu bëri ñu ngay dem business mm-hmm. baa ngi slow. Mm-hmm. so loolu yëpp dañ koo fekk si yoon bi. but nu ñu mën a def rek moo nekk nit yi support ñu. suñ suñ customers yi support ñu ñu xam ne we still fighting ak yooyu noonu. waaw loolu moom métti na trop ba pare soo waree toog xaar container for 60 days. mu war a agsi loolu dafa métti kon nag Covid 19 gaawal dellu nag. gaawal nag na nag nit ñi mën a liggéey ana xaalis bi koppar bi mu ñëw. billaahi ay <laughs> xam naa ne nam nga tukki trop macha allah. naa ko de nama naa caay na. billaahi mu nga soo léegi yow uh, lan nga ñëw mun a wax ni comme loolu mooy solution bi pour sa sa problème bi parce que comme client yi noo ko wax nekk di waxee ni it's difficult comme yow fuul nga. day jël te ñoo xamante ne xaaf dañ cee jël ak naka nga nekk di dundee ak jànq yoo xamante ne dañ dee bëgg a nay glow bi ni <laughs> naka lañ koy mën a jotee actually nay glow bi moom dafa yombaa jot cause maa ngi ko amee fii ku ko bëgg rek danga maa contact ma jox la ko and it's mm-hmm. just two hundred dollars ah, yeah defuma fa sax shipping fii bi cause mm-hmm. price yi China bi ak price yi fii du benn cause xam naa ne fii suma ma mbokkee ñoo fi nekka mm-hmm. su ma bëggee gars yi support tamit dinaa dinaa def lii bi mu nekk si price boo xam ne dinañ ko jënda lii pour gars yi support business bi rek la ñu dem ñu laal gloss bi ah, seen ma seen nataal yi ma post ko uh-huh. but man suma suma concern bi right now maa ngi focus on business yi soofa yi yi xaalis bi foofu la gën a neex lii yëpp xasul la rek pour nga bës business bi boole ko yëpp mu nekk benn mhm. furniture yi ñoo gën a am um, moo xaalis yeah so moo tax ma bëgg a ma bëgg a ñëw ma ñëwoon fii pour mhm. gars yi support mhm. cause xam nga yeen plateforme ngeen ni ngeen ñu support nit yi xam nit yi gën a xam business bi what it what it is about ak yooyu noonu yeah so si loolu laa gën a focus daan lip gloss bi moom nekk nekk na loo xamante ne it's really important kon nag suma gars yi comme ni ko faral di defee day lañu wax kon nak si si Demba stores. waaw Demba's online store on Facebook on on Facebook. lolu mom nek na xamantene da ngay dem rek click mu wax la li nga bëgg. click len click len ngeen like ngeen follow. ngeen supportante loolu rek tax. loolu nga a tax ñu dem parce que xamna na suma maas yi. sa maas yi suñ fi bëri waaw macha allah. ngay dinañ ñëw rek jàkkaarloog yow léegi yow ndey ñan nga ñu mëna wax ne comme ñoy sa customer yo xamantene foo dem seen sa sa néeg loolu moo fay nekk ak sa furniture yoo xamante ne yooyu nga nekk di yónnee. waaw furniture bi yàggut bu ma si duggee but am naa few nit yi nga xam ne order nañ ba pare. yaa soo mm-hmm. ñoom dinaa leen andi fii ñoom seen boppa ñu wax leen about my product. parce que xam nga saabu du fóot boppa soo ñoom su leen waxee suma product about my product den ngeen mm-hmm. post ko. yeah but xam naa ne good quality stuff laa dee jënd. parce mm-hmm. que man suma boppa dem naa ba si business center bi in Guangzhou. China ma seet products yi suma boppa mm-hmm. sometimes da nga mën a order something online du mm-hmm. ñëw comme ni nga ko gisee si picture uh-huh. su ma dama dem foofu noonu mm-hmm. gis su suma boppa ma xam ne waaw lii products yu baax leen dem ma jël seen contact ma am problème ak suma customers yi hundred percent xam naa ne lu ma nekk di jaay lu baax la dama dem di jaay lu bon man moom ñem naa si dara bi moom xam nga si dara sax waaw <laughs> gisuloo nu maa gulooyee gis naa ko bu baax de macha allah waay yow nga ne student nga naka di dundee ak jàngal bi ak business bi Hmm. xam nga lu nekk dañ koo balance soo ko buggee mhm. ñaar yi dam ko balance time jànga su jotee dama jóg dem jànga in between waaw su ma amee break su ma amee customer yu wax ma binda seen tur yi ma jël seen order yi ma mhm. ma proceed mhm. you know everything ak time am la jànga bi ak time am la lifin bi tamit jaabi tam ak time so dama ko dee mix and blend rek ma balance ko ma xam ne duma mënumaa feel school mënuñ maa yóbbu China mënuñ <laughs> maa yóbbu China ma feel foog ma pass ah. and then ma proceed business bi tamit duma ko bàyyi gannaaw mm-hmm. even though sometimes duma dee am nit yi nga xam ne dañ maa motivate mm-hmm. pour ma go further but then man suma boppa dama dee xam ne yo I have to fight mm-hmm. because commencé dara yombut di kan moo jóg rek teeki kenn jógul rek teeki yépp from the beginning la ngay commencé nga def waaye dama dee balance ñaari yëpp. Mm-hmm. dafa métti ba aw ma choice. Mm-hmm. am xaalis dafa neex jànga tamit dafa neex nga def def sa poos. looloo daa xam. waaw kay lan nga ñëw mën a xelalal youth yi tamit ñi seetaan ba pare yow sa products yi mm-hmm. ah, laata ngay dem si youth yi. Mm-hmm. Ah, yow yaa dee tànnal nit ñi da nga de seen gars yi pictures wala ñoom ñooy gis si internet bi luñ bugg a ne la ah man ndey lii de laa bugg a nga oral ma ko ndax yow naka nga dee defee. sa yaa ku nekk li nga ak li nga bëgg a. gars yi ma andilee seen nataal it's easier for me. man dama proceed nit rek ma won leen ma wax leen price bi lan la ma won ah. leen bagage bi mm-hmm. ñoom dañ maa wax rek ñoom lu ñu a den man ma uti ko mm-hmm. yan man noonu laa day demee sometimes dama dee post man maa dee uti post ngeen suñ laajtee ma wax leen price bi lan la ah, mm-hmm. loolu moom neex na kon sa am na ñoo xamante ne sa sa bëgg a bëgg lañ dee toog. waaw yeneen saay soo dugalee lu rafet rek ñu ne ah lii de rafet na la ma laaj bi <laughs> exactly dañuy just send picture ñu ne mhm. util ma lii. mu ngoog léegi advice al ma youth si ñi seetaan ah bu leen give up de. du du du musa yomba. Mhm. dafa jafe dafa tànga yeneen saay da ngaa toog doo mhm. am dara. sales du dugga kenn du la kenn du la wax ne yow get up nga na just work hard for it don't give up. yow yaay xam nekk li nga you have to know your purpose in life life soo xamee loolu rek jeex na soo xamee ne man business bi am good at it danga dem nga fight for it mm-hmm, mm-hmm. bul mu sa lose hope and then gis nga sooy commencé yi di am ñoo xam ne dañ laa wax ne this is not gonna work out for you suñ paree ñoom si si boppam ñu follow la wala ñu ñëw ñu ne i yaa ngi try de dal na dal na ma si lu bëri yoon bul leen déglu nit sa su la joxee lii nga bëgg a def defal loolu mm-hmm. noonu soo wiinee it's fine soo wiinut it's fine mm-hmm. adduna bi noonu la dañuy def mistake rek yeah lu nekk ngay try dangaa try fii try man maa ngi nii am suma own brand mm-hmm. maa ngee jaay lu nekk lay try ba yàlla wax ma ubbil ma bunta bi waaw mu ngoog follow leen nii Glo si eh, Instagram am bi soo leen duggee rek di ngeen gis cepee nu ñoo glowee foofu macha allah macha allah léegi ndey bëgg nga jox gaay sa details yi sa contacts yi ah, sa Facebook page sa Instagram mhm. social media platforms foo xamante ne képp koo xamante ne soxla la ndey rek na dem mhm. foofu noonu ñu joteeg yow. suma page bi on Instagram di Nay Glo la tudda mhm. on Facebook Demba's online store la. mun ngeen maa jot tamit um, two two plus two two zero. 2561599 ah, ok WhatsApp boobu ya. mooy WhatsApp bi su ko defee rek nga pilloog ndey ndey léegi balaa ngay dem dama bëgg nga léebal ma rek balaa ngay dem su ko defee ñuy seetaan mën na rek di ah waaw de xam nga da ngaa bëri man xam mhm. nga anu man man nag man maire yaa ma maire yi dama lay ñeppal paay waaye xam naa ne moom dama man kay mënuma dara waa léegi yow da ngay tàggatoo ñun suñu tëj man dinaa taago taagoo daal ah. ba bàyyi xam nga nag suma olof bi moom setut. olof yi setut de waaye wax na soxlaam. wax naa lépp lu ma <laughs> mu ne olof yi setu de waaye wax na soxlaam kon gis ngeen sax Sahel Network TV yéen lañ fi toogal rek gis ngeen day ndaw la man ndaw laa kon ñu ñëpp dañoo jàppalante rek mën a yóbbu Gambia si kanam suma gars yi joxaat naa leen di daje rek ba beneen édition of the Loi Yëngu ba bye see you next time. bye.